dellu siwaat nañ ak yéen ci seen émission l'invité de la rédaction tey nag ñu ciy dalal Dame ci di ko dalalaat encore une fois sax la ñuy wax di ko gërëm nag ci disponibilité am moom à chaque fois rek bu actualité bi tolloo fenn fi ci wàllum njàng mi njàngale mi ak actualité bi dañ koy soxla ndax xam-xamam ak ni mu gëmee ay pensées ak ay idéem Dame ñu bàyyi la nga nuyu ak ñu ñuy suivre. jërëjëf Moustapha maa ngi lay sant la gërëm bu baax ci dalal bi nga ma dalalaat. di nuyu internet yi di nuyu ñëpp ñi nga xam ñu ngi seetaan di nuyu jàngalekat yi nga xam ne ñoo bokk ci Cusems authentique bi may jiite ak waa g bi nga xam ne kuréelu jàngalekat la bu ma bokk di nuyu aussi jàngalekatu Sénégal yëpp di ñaan rek li nga xam ne moom lañ nar a waxtaane mu amal njëriñ réew mi amal ko njàng meeg njàngale mi mhm. wax nga ko léegi dañ koy doore ak njàng meeg njàngale mi école ubbi na waaye ba léegi am na ñoo xam ne mënaguñoo parce que dañoo jàpp ne dañoo amel bor école privée yi ñoo ñu leen toog leen seen kër mu am euh, xëccoo gu métti ba démb sax benn teg nañ ci benn conférence de presse association ñi nga xam ne ñooy dimbali ñooy taxaw waajur yi ñi seen doom yi bañ a jàngi ñu ngi sàkku ñu tekki ndombal tant que ministre de l' ba tax na sax euh, démb daal wane nañu daal ne dëgg-dëgg mer nañ. mais mer dafa jot man wax dëgg yàlla bi coow li amee parents école joor yi dañ ma woo biñ ma woowee man ma daal di woo tamit wax expliquer ma li nga xam ne moo leen jàppale ak euh, ki nga xam moom mooy déclarante responsable bi. te moom école joor biñ ma ko waxee ni ma nee na dañuy fay ñetti weer pour suñu doom yi buñ ko fayul suñuy doom duñu inscrire ren booba mu ngi nekk une semaine avant ñu ubbi école bi bi ñu ko defee man maa daan leen dinaa ci dox jàmm ma woo ko moom ndaw si. bi ma ko woowee mu ne moom wutul jàmm moom wutul jàmm nan ko fay ñetti weer d'accord na pour étaler ko mais dañ ko koy fay ma ne ko nag kon mooy yow force daal yow daan la fay sinon xale yi duñ inscrire man ma waaw duñ inscrire. bi ñu defee loolu parent yi ma ne leen kii xeex ak moom jot na le 12 bi ñuy ubbi ñu dem taxaw constaté loolu par huissier yóbbu ko tribunal parce que Miss Mamadou Talla lañu doon xaar ba jàngale mi ba njàng mi ubbi te àdduwul Miss bi nag fi mu toll nii ñëpp ñi doon natable li ma daan wax ci moom ni cuune la ministre yi fi jaaragun yëpp moo leen gën a cuute cuune lii firndeel na ko Mamadou Talla munul. moom bërki démboo Ndiaye bi mu demee assemblée nationale ñëpp gis nañ la fa xew député di ko kañ. ci vote budget bi man maa nga fa woon mais bi ma paree dama rus parce que dama xam ne ministre bu cuunee ni Mamadou Talla musta am ci njàng mi ministre yi nag ñoom bu ñu demee assemblée nationale comme majorité moo fa am dañ leen di kañ di leen tagg parce que député yi ku jël parole ne ko yow yaa fi gën yow la Macky Sall bëgg ñun yow lañ bëgg mais ñun sénégalais yi bëgguñu ko te keroog ca assemblée nationale la fa xew presque bu fekkonte ne ku jóg ci ñoom 83 personnes ya fa jël parole bu doon ku jóg ci ñoom ma daa di tagg ministre bi ministre bi may la xaalis day nuroog ngénte ngénte ngénte ceddo ndaxte maye xaalis rek moo fa desoon pour mu nekk ngénte parce maire yi soloon nañ seen cuub yu rafet toog di ko tagg moom fi toog ministre bi mooy firnde la ci lii nga wax lii nga wax firnde la parce lu ëpp téeméeri ndong toog seen kër depuis le novembre jàngiwun ministre Mamadou Talla di tendeefal et pourtant état jox na école Dior ak yeneen école yi mel na moom muy privé yi ñeenti milliards yu teg deux cent millions yoo xam dañ leen koo jox pour dimbalee leen ko ci Covid bi wala dañ leen koy dimbalee ba noppi ñoom di toog di seetaan ñoom état bi ñuy xaar ci Mamadou Talla mu génne note de service muy tendeefal bu ñu ko waxee mu naan man damaa bëgg jàmm mais bëgg jàmm du fénqale ñaar ñi moom fi mu mi ngi fénqale parents d'élèves yi ak euh, ba noppi bu ko waxee man damaa bëgg bëgg jàmm di def efu tappaleem yooyu ñun li ñuy xaar ci moom mooy mu àtte parce que moom mooy état ci njàng mi donc bu njàng mi amee coow ñu ci moom muy def dans la langue de bois mais Mamadou Talla je suis ñun ñëpp tous les acteurs tous les acteurs sérieux je veux dire à part quelques syndicats yu koy jàppale naan mise bu baax la mais Mamadou Talla képp koo xam ne njàng meeg njàngale mi rek moo la ñor képp koo xam ne jàngalekat yi rek ñoo la ñor ak waajuru ndongo yi ak ndongo yi di nga xam ne Mamadou Talla moo yées ci ministre yi fi jaaragul parce que ministre boo xam boo waree jël décision doo jël ba muy indi ay jafe yu mel nii ci njàng mi lu ma téeméeri ndongo toog seen kër bi école ubbee ba léegi mënu ñoo jàngi loolu xam nga ne musta am ci njàng mi c'est la première fois mu am ci lépp tendee falu Mamadou Talla c'est inacceptable moo tax actuellement le juge de référés te mbir mi dafa doy waar kenn ñëmu la àtte mbir mi juge bi mi ngi ko dàq ba le 21 décembre koo ci waxal ñëpp ragal kenn ñëmu la laal mbir mi état bi di seetaan justice di seetaan ministre bi waroon na àtte àttewul man vraiment Sénégal damaa xamul ban Sénégal lañ nekk. parce que dañoo bëggoon marche tamit ñu aaye leen ko. mais lépp luñ bëgg a def marche bi effectivement dañ ko tere. te marche bi pourtant bi ñu bëggoon def rond point JVC mais marche que du ñoom rek. am na école euh, euh, protestante yi jëppali ñoom tam ci lañ bokk ak kabi school ñoom ñëpp ñu taxaw teg leen jaay leen doole yooyu yëpp état bi di seetaan mais lii kenn mësu koo gis quoi sa à dire état boo xam ne bu sa askan sonnee sa askan jaaxle et puis sa askan nekk ci dëgg parce que ñoom seeni i doom kenn jàngalu leen ñetti weer yëpp président Macky Sall moo tëjoon école bi xale yi toog ca kër ya kenn jàngalu leen ba noppi tey ñu leen di laaj ñetti weer yoo xam tegul fenn du ci dëgg mais ñu xaar rek état àtte ci dëgg. mais at état bi di seetaan di tendeefal surtout Mamadou Talla nga xam moo tax bu ma ko tuddee Ndonde bu ñu daakaande nit ñi naan man dañ ko tuddee dafa rëy man leen waroon naa ko tuddee Ndonde bu ñu daakaande plus parce que moom amul njariñ day lagar lagari bu waree décider du décider ñëpp naan Mamadou Talla anamu mais ministre bu mel nii ñun mosuñu koo am. président Macky Sall mais mais Dame am nañu posé question parfois ñun est-ce que Dame Mbodj amul problème ak Mamadou Talla parce que da ngay tiir tiir à bout portant photo. mais Mamadou Talla ci boppam man aw ma problème pour de am ak moom problème mais daa woon nañ na sax c'est-à-dire que ñun mosuñu am ministre bu cuunee nii isolé laajal jàngalekat yi koo ci laaj man la mais moom feesul chaise bi mu nekk. parce que lii firndeel na ko yow dafa nga ne man dinaa nekk ministre de l' éducation nationale jox école privée yi sama subvention ñeenti milliards yu teg ba pare ñoom ma ñoom ñoom ñu ne ay xale dinañ toog Sénégal lu ma téeméeri ndonga depuis un mois jànguñu seen kër parce que dañuy laaj seen parents yi lu amul. te seen parents yi amee luñ ko école bi parce que ñoom seen i mais mois yooyu ñëpp d'accord nañu entamé wuñ ko te école Dior directrice école Dior moom moo ni moom gëmul enseignement à distance parce que école yan nii sax mën doon def enseignement à distance. mais école Dior directrice bi moo toog ñëpp di ko dégg Sénégal médias yi couvrir ko mu ne moom gëmul enseignement à distance parce que jàpp na ni kenn mënta jàng à distance Sénégal parce que àggaguñ fa. mais kon kay mooy jàngalul doomi jàmbur ba noppi ni leen da ngeen di fay ñetti weer wala du ngeen dugg sama école léegi te ñoom mais kooku ku mel noonu gis nga nit bu fekkente ne da ngaa nekk kilifa nekk ci biir kër kër gi di toj te yow sa yoon nekku ñu nga tëdd ci sa njoowaan di njoowaanu lool la Mamadou talaa def moo tax ma ni leen Mamadou njàng mi xam nga lu mu lu mu tumaranke dafa tumaranke kilifa. ok dañuy dañuy dañuy dugg ci ba tey dañuy des léegi ci njàng mi ak njàngale mi. mais cet fois-ci coronavirus bi la ñuy wax am nañu njortu ñu tëjaat classe yi parce que gis nañ ni corona bi ñi ngi wax deuxième vague ministre bi moo ko wax démb nee na dugg nañ ci deuxième vague bi ba am ñu commencé xalaat ndax duñ tëj classe yi ndax yow yow noo gisee loolu wat nañ tëj classe yi wala ñu continuer di jàng di takk ay masque non d'abord damay wax ni buñ nekkee ci seen logique kay ba ñuy njëkk a tëj classe yi du ñaar fukki cas amoon yu teg ñeent wala juróom mm-hmm. muy ñaar fukk ak juróomi cas du loolu lañ amoon président Macky Sall def discours am bu rëy boobu mu defoon ni l'heure est grave mhm. waaw daan ni l'heure est grave léegi daal def daal di def état d'urgence am def ay couvre-feu def lu ko neex tëj sénégalais yi mhm. daal di tëj école yi ba université yi lool la defoon ci loo xam ñaar fukki cas ak juróom la woon léegi kon kay bu ñu demee ba ñuy am téeméeri cas par bis wala lu jege téeméeri cas par bis kon kay logique pour logique daa war a tëjaat looloo tax man bi ma laajee mën leen bu dee ca logique ba mu nekkoon mhm. la nekk ba léegi daa war a mais man ba ñuy tëj jamono yooyu dama leen woon leen tëj kon tey yàlla jox na ma dëgg ci ñoom parce que ba ñuy tëj man rek maa taxawoon ci syndicaliste ni tëj bi du solution ñu ne ñoom dañuy tëj parce que dañoo gis ni école bi feebar bi dafay law waaw kon kay man la ma leen waxoon am na man gëw ma tëj bi tëj bi du woon solution. loo gëm kon. parce que xam nga lu ma gëm man feebar bi ku koy analyser te déparé woo ci Illuminati yi ak le nouvel ordre mondial doo comprendre enjeu yi gis nga feebar bi li ko lal du li nit ñuy wax. ñun Sénégal amuñu problème pour tëj suñuy école amuñu problème pour tëj suñuy suñuy juma amuñu problème pour tëj suñuy marché parce que ñun feebar bi wan nañu lim man feebar bi dani seeni màggat laa soxla ñi nga xam ne dañoo am poids dañoo obèse ñi nga xam dañoo am ay feebaru diabète ak ay feebaru roño ah, ak ay feebaru tension ñooñu laa soxla ñeneen ñi su ma duggee ci ñoom dama leen di def ay ma damay nekk une maladie bénigne parce que ma leen mën a def ko defee ñu wér waaw kon kay li muy def ci réew mi te bi mu fi ñëwee léegi ñaata la fi rayagul rey fi lim fi rey même bu dee benn nit la dañuy d'accord ni doomu aadama bakkanam dafa fort. mais nag yeneen maladies yi ko gën a am doole ngi fi rey nit fa actuellement bu ñu jëlee yeneen feebar yi ko gën garaaw mooy que ñu jël feebaru roño li muy rey par bis corona bi rey ko te pourtant état jéemu ci dara ñi war a def dialyse ñi ngi toog mun ñoo def dialyse bërki demoo Njaay mbëkk mi li mu rey ci ay xale yu ndaw parce que feebar bi feebaru euh, coronavirus moom ay màggat lay rey ak ñu ma fi lim sànq. mais mbëkk mi ay xale yu ndaw yoo xam réew mi da leen a soxla ñoom la rey mais te dégg état bi defu ci dara dul benn tweet bu président de la république def kon dama lay xamal ne la ñun amuñu problème boobu parce que moins de 400 personnes ci fukki weer moom la fi corona bi rey 400 personnes ci benn quartier bu ndaw en France wala Espagne wala États-Unis da ko doon rey ci benn waxtu wala du mat waxtu sax mu rey lu toll noonu ñun fukki weer loolu la fi rey kon nag nañ waxante dëgg. ñun sunu problème bokkuñu Europe c'est pas parce que Europe def na lii que ñun dañ koy def xam nga lu ma gëm man bu ñu fi jéemaatee tëj sénégalais yi danañ taxaw fi pour défier l'état maa ngi ñaan président Macky Sall bu mu dugg ci loolu. mais dañuy delluwaat tuuti si ginnaaw bi nga pour nga analyser jàngoro ji ak dellu si bi mu dellu si waat nga ne Illuminati yi ak nouvel ordre mondial bi. ñoom ñoo Illuminati yi mooy franc-maçon yi. ñoom loo bëgg wax foofu daal. li ma bëgg a wax foofu ñoom ñi nga xam ne ñoo ŋànk doole adduna bi nga xam ne ñu ngi ci gën a lim la fondation Bill et Melinda Gates nga xam ne ñoom ñu ngi ci ànd ak moom mooy nekk la deuxième fortune mondiale te am na jamono yàggul moom moo doon première fortune mondiale mooy ki ëpp alal ci àdduna moom ak ñi am alal comme moom dañoo gëm ne dañoo war a tàggataat ab gisin bu bees ni yàlla subhaanahu wa taala tàggate àdduna ñoom dañuy tàggat seen gisee bopp tudde seeni bopp ay mason maçon mooy tabaxaat beneen àdduna ñoom loolu lañ gëm teg ko nag ki dañuy xeex diine yi xeex ngëm-ngëm diine yëpp nag pas diine islam seulement diine islam leen ci gën a déranger mais diine yëpp ñu gëm ne nañ ko nërmeel napp nit ñi xoqatal leen jaar fi ñu bëgg jaar loolu mooy projet franc yi loolu mooy projet illuminati yi te ñoom ñooñu ŋànk àdduna dañoo am ku leen ci jàppale muy OMS ci feebar bi parce que OMS état yi ñoo ko daan financé mais actuellement état yi financé tuñ OMS OMS actuellement ñi koy financé mooy ñooñu mën a limal ñoo ciy def seen xaalis mba dégg nga sax Donald Trump li mu wax ah ci jamonoom avant élection yi mu ne moom États-Unis dañ xaalis bi muy def ci biir OMS parce que leen effectivement il raison OMS moomu. ñoom ñoo nekk lëmbe àdduna bi di imposer li ñu bëgg te li ñu bëgg mooy imposer seen nouvelle ordre mondiale jaarale ko ci li mu gëm moom parce que Bill Gates nga xam moom moo jiite ñooñu ci ñi ëpp doole euh, contrôler finance àdduna bi contrôler banque yëpp contrôler le euh, euh, les le les pharmacies contrôler les les les laboratoires yi yi defar farm yi defar garab yi yooyu yëpp ñoom lépp luy koom-koom contrôler télécom bi cest à lépp luy alal ci àdduna ñoom ñoo contrôler ñoom ñoo population mondiale bi en deux mille cent dafa nar a dem quinze milliards te bu ñu demee quinze milliards kenn dootu mën a dund dund sur terre alors ñun li ñu gëm mooy yàlla subhaanahu wa taala moo wax ni képp koo xam ne moom jox na la nga dund moom dana dana la jox loo dunde ba ba keroog sa waxtu wi mu la wi mu la sàkkal jeex kon nag ñu ne ñoom bokkuñu vision ñoom ne li ñu gëm mooy nit ñi bu ñu leen wàññiwul. ñoom kon ci kanam tuuti kenn dootu mën a dund sur terre parce que population mondiale bi mu ngi ci 7 milliards 200 millions ñoom gëm nañ ni fii ak 2100 day dem 15 milliards donc ñoom li ñu gëm mooy ne nit ñi wàññeeku mais mën ngaa gëm nit wax loolu moom Bill Gates wax ko ci vidéo bu leer ba noonu nit ñi gëm ni moom di ko présenté comme un philanthrope di gëm ni moom dafa bëgg dafa ñëw pour défendre les gens am. li ñuy layal nii muy Sénégal muy France muy réew yi ko gën a jàppale parce que France moom moo jiite mbon gi ci àdduna. Illuminati yooyu ngay wax France fa la fa fa la wulee ñaay léegi nag ñoom dañoo wax ni ñoom li ñu bëgg mooy layal ba génne seenu vaccin. moo tax man dama. ci ci ci ci vaccin boobu laa laa laa bëgg ñëw sax comme dugg nañ ci deuxième vague bi wax yooyu yëpp. vaccin bi moo moo doon question bi ci topp euh, ministre Abdoulaye Diouf Sarr euh, indi na ay précisions yu mu ci def démb mu xam ne ne Sénégal euh, vaccin bi muy jël mooy bi nga xam ne OMS daf ko homologué parce que am na ñu commencé di wax naan Sénégal tànn Moderna ak yeneen xeetu vaccin yoo xam ne dañu ko doon dégg ci ci ci àddina bi. alors euh, yow ndax gëm nga vaccin bi noo ko noo ko noo koy jàngatee. xam nga Diouf Sarr wax dëgg yàlla moom dañ koy wax loo rek moom du ci dara wax dëgg yàlla. man mais mooy mooy sunu ministre de la koy wax loo rek Diouf Sarr moom du ci dara même Macky Sall dañ koy wax loo rek xam nga ñoom ñoom duñ ci dara ñoom dañ leen di def leen rek ñu def ñoom man ñoom moo tax seen i wax man lijjantiwu ma ko xam nga lu ma man mooy sénégalais yi parce que ñoom la ñuy wax intéressé wuñu ñun sénégalais parce que gisuñ suñu bopp ci li ñuy def ñoom xam nañ ne peuple bi joxu leen confiance ñun suñu santé duñ ko dénk ñooñu parce que feebar bi mu commencé ak layal yi dafa bari. mais ñoom ñoo ñuy taxaw yaa dégg waaw effectivement mais taxawuñ ci fi nga xam ne moom la ñuy xaar moo tax ñun askan wi wóoluwuñ leen actuellement sénégalais yi koo ci wax danaan la ñii li ñuy def par 10 heures seen théâtre boobu ñuy def di wax seen i nombre ak cas ak affaire yooyu ñun déglootuñ ko xam nga léegi lu am solo mooy sunu santé duñ ko tayle xam nga tax duñ tayle sunu santé mooy ñaari camp dafa am ci vaccin bi mooy camp wu ñi nga xam ne ay pro vaccin lañ ak camp wu ñi nga xam ne c'est des anti vaccin mm-hmm. léegi nag ñaari camp yëpp mën nañ cee lim ay kàngam bu ñu jëlee ñenn benn camp bi nga xam dañoo ànd ci vaccin bi mooy ñi nga xam ne OMS moo leen di jàppale nga xam ne ñoom ci dooley OMS dañuy dund OMS moo leen di fay moo leen di financé ñooñu dañoo am intérêt ci li OMS di wax ñu koy wax. am beneen camp boo xam mën nañ cee lim ñu mel ne ñoom Didier Raoult ak ñoom Christian Perronnet ak ñeneen ñu mel ne ñoom ñoo xam d' accord nañ ni ñëpp àdduna bi d' accord nañ ni c' est d' ñu taxaw ñoom ànduñu ci combine bi ñu nga xam ne moo am ci àdduna bi ñoom ñee di leen di leen di leen tudde sax ay complotiste alors que ñoom ñooy complotiste yi léegi nag ñooñu ñoo taxaw ñaari camp yi xam nga ñaari camp yëpp c'est des spécialistes man du samay wax kon nag ñoom comme ñaari camp yi taxaw nañ kii ni vaccin bi baaxul parce que ñoom Didier rawul seen camp ñoom nee nañ euh, vaccin bi baaxul pourquoi parce que dadul sax vaccin ñoom vaccin bi nee nañ c'est juste euh, benn Euh, benn benn benn produit la bu ñu bu ñu bëgg a inoculer les gens yaa may dégg pour euh, euh, ba dem seen i gène pour utal leen ay anticorps ñoom nee taxawul parce que loolu ce n'est pas ñoom ñu ne loolu effet yi mu nar a def mooy effet secondaire yi kenn ñu la jël sa responsable di wax ni bu effet secondaire yi amee man maa koy jël les laboratoires nee nañ ñoom seen yoon nekku ci bu amee effet secondaire ci vaccin ñoom nee nañ seen yoon nekku ci nee nañ na état yi jël seen i responsabilité mais ñoom di jee rawoon ne loolu kenn du ko fi defee ak ñoom Christian Perronnet nga xam ne ay infectiologue yu réputé lañ waa léegi ñun daan xam loolu ñun ñun africains yi di taxaw di seetaan bañ ñëw inoculer ñu seen i poison seen i euh, seen rey suñu système immunitaire ñu commencé feebar nit ñi di am ay espérance de vie yu gën a néew yéen daan am mais ñun dinañ seetaan loolu moo tax on l'acceptera pas moo tax ñun dañu gëm ne vaccin bi ñun muy vaccin euh, russe bi muy Moderna muy Pfizer muy bu mu ci mënti doon ñun gëmuñu vaccin bi xam lu ñu gëm mooy nan ñu bàyyi parce que feebar bi def fi lu ñuy lu lu tax ñuy wut vaccin te bu ñu demoon ba ñoom ñuy commandé seen vaccin. vaccin boobu ñuy wax ne Moderna la ñuy jël ñoom président Macky Sall parce que nee na ñoom homologué nañ boobu lañ kii te parce que nee nañ boobu la OMS homologué boobu la ñuy jël ñoom dañ leen a bëgg a leeral ne vaccin bi sénégalais yi duñ ci vacciné wu. Mhm. nañ 61 pour cent de la population rejeté nañ vaccin bi. à travers plusieurs associations qui existent en France ñun fii Sénégal nous allons demander aux populations de faire exactement la même chose de rejeter ça à 100 pour cent maintenant nag bu ñëwee président Macky na njëkk a ñàkku ci vaccin bi. ah loolu mooy may ma rek may ma rek non c'est important moom nee na homologué na ko kay kon moom ñeme na ñun ñemewuñ danoo ragal suñ santé duñ ko duñ ko wanteer kenn parce que santé mbirum nit ki ñun comme ñaari camp am na te wóoluwuñ ni ban moo ci nekk dëggam du dëgg te ñaari camp yëpp c'est des spécialistes nee nañ kii nee na baax na kii ni baaxul ñun kon comme ay baax naa baaxul am na ci ñun wóolootuñ vaccin yi léegi nag moom comme wóolu na ko moom président Macky Sall ak nguuram bu ñëwee moom na ñàkk njabootam na leen ñàkk ci kanamu sénégalais yi comme na mu ne woon ci début bi ñuy raxasu xam nga moo defaroon vidéo bi feebar bii doog a dugg xam nga daa raxasu ñëpp xam na ni raxasoo moo nu jàngal dañuy raxasoo pour pour xeex mbas mi waa léegi noonu mënu ko jàngale woon ca ca pale ba na ñëw tamit woo médecin yi ñu pikiir ko ñu gis covid 19 bi euh, vingt vaccin bi ñu ñàkk ko ko ci kanamu sénégal yëpp ñu seetaan ko à la télé en direct ba noppi njabootam ba noppi ñàkk ay ministre am ba noppi ak ñàkk ay député am ñooñu bu leen ñàkkee nag ñun sénégalais yi ñu xaar ñaari at wala ñetti at pour xool lu muy def seen yaram bu ko defee ñun bu ñu gisee ni defu leen dara bu defee ñetti at wala ñeent wala juróom ñun ñu doo a ñàkku mais nag ñun duñ ñëw rek ñàkku ñun wóoluwun wóoluwun vaccin bi ñun sénégalais yi wóoluwun vaccin bi. mais xam nga mais mais d' accord ñun sénégalais yi wóoluñu vaccin loolu yow yaa ko wax mais comme tey jii ministre bi nee na ñoom am nañ ay services yoo xamante ne dañuy dañuy def lépp loo xam ne day dugg ci réew mi xam nañ dañ koy saytu. xoolaat ko bu baax a baax vaccin boo xam ne OMS moo eh, kon est yi am na màgget non non waaw moom laa lay wax ay ay ba samay wax parce que am na ñuy ruube naan noo yow lu sa yoon ci euh, ni ñuy faje man waxuma damay damay damay damay li nga xam ne moom la ay spécialiste wax yoo xam man ñooñu laa gën a wóolu ñii li ñuy wax mm-hmm. man mënumaa gën a euh, docteur Libaas Niang bi euh, bi nga xam mi ngi ci sunu réew mi bëgguma def publicité ñëpp xam fan lay liggéey nekk ponkal ci ci ci ci médecine. Mhm. lu mu wax du nee na moom du mag du vac nee na moom du ñàkku njabootam du ñu wax jooju dama koy jël sànni. mooy ki jiite sami. mais moom moom mu jiite sami. Mhm. wax jooju danaa ko jël sànni man te man mi ngi am jànguma dara ci santé moom mu taxaw moom ni moom ñàkkuwul ay doomam ñàkkuwul njabootam ñàkkuwul kooku dinaa teg ay waxam fa la jël waxi Diouf Sarr Diouf Sarr nga xam ne ab politicien la buy jàppale Macky Sall mais il faut que les gens soient sérieux moo tax ñun wóoluwun waxi gouvernement xam luñ gëm mooy spécialiste yi wuñ te mbirum santé du caaxaan kon sénégalais yi bu leen jël ay risques bu leen ñàkku ku ci ñàkku dañ ko réccu de man de sama kër du ma ñàkku sama njaboot du ñu ñàkku ku jël say risque nga ñàkku ñàkkul say ñàkku mais ñun ñàkkuwun tey ñàkkuwun ëllëg parce que dafa am conflit bu am entre les spécialistes na ñu baax na am ñu ni baaxul coow li am na. te ñu naan baax na ñun gis nañ ne danoo jege OMS te ñun OMS wóoluwuñ leen parce que OMS moo yore l' agenda mondial ci wàllu santé kon nag ñun wóoluwuñ ñooñu maintenant dama la jox benn exemple pour wan leen mënu ma leen a wóolu yën nga bi coowul euh, Covid organique bi ñëwee Sénégal. Mm-hmm. ginnaaw bi ñu traité Didier rawul ci protocole am ni charlatan la bi muy traité. Euh, euh, hydroxychloroquine bi ak asi mm-hmm. azithromycine bi mooy antibiotique bi mu doon associé ak chloroquine bi xam nga ñëpp ñëpp d'accord nañu ne Marseille moo gën a tuut la nit ñu dee ci Covid bi mais même Marseille dañ ko fa doon même France waa Paris ak gouvernement français bi dañ ko doon traité de charlatan dégg nga de charlatan maanaam sëriñu tariyaax loolu lañ ko lool lool loolu lañ ko loolu lañ ko traité moom Didier Raoult te pourtant il a fait d'excellents résultats mun leen yéen li ngeen di wax taxawul man sama traitement ma ngeen bàyyi ba nit ki sonn ngeen doog koy jox dama ne un traitement précoce laa wax maanaam mu teel bu nit ki gisee symptômes yi ca premier jour yi rek ñu jox ko traitement bi nee na day wér mais bu ngeen bàyyee ba mu nekk cas grave dootu ko mun faj ñoom nag dañ doon bàyyi ba mu nekk cas grave ñu ne gis ngeen traitement bi baaxul donc bi ñu paree ci loolu ñu ñëw ci Covid organique bi. bi ñu ñëwee ci Covid organique bi lu ñu wax du dañ ne léegi na Sénégal bi mu ñëwee ku ko jiite woon lan la c'est un conseil technique de moom moo ñëw jiite comité ba ñu ne léegi ñoom daan saytu Covid organique bi te daañ commencé les essais cliniques 15 jours la Daouda Ndiaye joxe woon. Sénégalais yi nañ ma teem nañ dem ci nat bi tàppe dinañ gis professeur Daouda Ndiaye ni 15 jours dans 15 jours dinañ commencé les essais cliniques sur le Covid organique est-ce que commencé na kenn gisul benn essai clinique mu commencé. mais Covid organique boobu dama la fay dagg parce que dañ koo wax noonu pour sénégal yi dégg ko pour ñu nelawal sénégalais yi loolu laa la bëgg a leeral. maintenant loolu lañ def tamit ci traitement Didier Raoult bi benn moment nag au moins le professeur Seydi jël na ay responsabilité ni moom moom lay faje parce que moom waaw moom la gis moom da koy associé faj ci nit ñi mm. donc loolu moo tax man li ma gëm mooy encore une fois Sénégal Covid organique euh, Covid 19 euh, bi mm-hmm. rayagu fi lu jar ñuy popul ñuy def une une vaccination. massive campagne de vaccination maanaam campagne de vaccination boobu ñuy jéem a layal. Mhm. du fi amee sénégalais yi duñ ko d' accord parce que am nay feebar yu ëpp importance boobu fopp ñu war cee def seen i pour faj sénégalais yi dee chaque jour ci feebar yooyu defuñu ko kon lii loolu rek war nañoo. tey suñu xel ñun sénégalais yi. lu tax jëluñu alalu réew mi def ko ci feebar yi rey sénégalais yi en masse. Mhm. ñu jël feebar boo xam si presque reyu fi dara. lim fi rey c'est vrai que ay benn bakkan sax bakkanu doomu aadama dafa fort mais nag bu ko comparé ak feebar yi rey fii Sénégal. feebar bii moo gën a tuut la yeneen yi rey donc ñun te yooyu dañ leen a négliger léegi nag bii parce que Europe ñu ngi leen di imposer ab vaccin ñu bëgg a taxaw ni léegi dañuy imposer nit ñi nañu ñàkku parce que ñun léegi bii OMS wax boobu lañ boobu lañ boobu lañ validé xamal ma leen di xamal ñun euh, président Macron bërki Demba Ndiaye lu mu fi waxoon il y a du dane woon ku bu bu vaccin yi pare képp koo xam ni euh, jëloo vaccin bi maanaam ñàkkuwoo doo duggati France. dootuñu la autorisé nga dugg France xam la fi waxoon mais loolu moo lay wan ne gars yi kay am na luñ luñ làq ci ginnaaw. léegi tey France débat bi fa am xam nga lu mu mujj andi nee nañ léegi le vaccin n'est plus obligatoire maanaam léegi ku nekk yaay xool sa sañ-sañ nga jël sa coobarey bopp bu la neexee nga ñàkku nga ñàkku bu la doyul nga bañ a ñàkku actuellement le taux de refus est très élevé en France parce que nit ñi bañuñu wér mais mbir mi dafa am. parax parax ju ci ne xamul xamul mbir mi lëndëm leerul xamul tax leerul. spécialiste yi ba tey du samay wax spécialiste ñoo ni vaccin yi mos a am ci àdduna bi yëpp amul benn vaccin boo xam si defar nañ ko ci mois de quinze ans amu ci benn parce que même pour nga def les essais humains nga def ko essayé ko ci nit ñi ak gannaaw bi nga ko essayé ci mala yi bala ngaa def étape yooyu rek di nga dem dix ans quinze ans waa léegi yéen mbas mi dugg fii defagul sax lu dul dix mois ci àdduna bi gars yi bëgg fee parax parax génn fi ab vaccin daal koy jox nit dugal ko seen yaram mais ku jël risque ci loolu tu prends risques ñun daal dañuy leeral askan wi parce que c'est ça notre rôle on ne sera pas là di toog di seetaan ba ëllëg musiba am léegi nag bu ko defee ñu naan yéen waxu leen ñu woon dara kon nag askan wi dañ leen di leeral actuellement ku ñeme demal nga ñàkku mais daal ñun li ñu jàpp mooy xel tey na te wér-gi-yaram bu sikki sàkk xësee am bul jël risque. ok daam dañuy dañuy delluwaat si njàng meek njàngale mi euh, gis nañ ni am na ay coppite yoo xamante ne fësal nañ ko. mu fas yéene prolongé vacances yi ren vacances su Noël du am am na sax ay frustration yu commencé jur yéen ñi nga xam ne ay jàngalekat ngeen lool lu baax la war a doon ndax euh, xale yi gis nañ ne diggante daaw ak ren quantum horaire bi am na lu bari lu ci manqué. mais non c'est-à-dire calendrier bii moom yépp ñun jàngalekat yi weesuwul calendrier bu mel nii ñoom léegi calendrier bi xam lu mu signifié mooy ren jàngalekat yi duñu am duñu am fête amul benn noppalu ñuy noppalu fii ba fii ba 14 août. c'est-à-dire du 12 novembre au 14 août jàngalekat du noppalu loolu la signifié cest à ñoom dañuy départ bu ñu demee ba trimestre bi jeex ñu mayee ñetti fan wala ñeenti fan daal di dooraat donc liñ bëgg mooy rey jàngalekat yi surtout ci période mbas nga bëgg euh, euh, euh, gën a gën a gën a sonal jàngalekat yi ba nga xam si parce que feebar bi tamit contexte bi du tax ñun ñuy exposer enseignants yi aujourd'hui bu ñu nee jàngalekat day commencer novembre ba août amu ci benn période boo xam ne dina am temps noppalu même même même même même ci calendrier bi sax am na njuumte bu rëy bu ci am bu wone seenu cuune parce que dañ ni premier semestre bi day dem ba la ba la bala bala bala bala huit février léegi euh, ñu jël foofu benn fête boo xam day dem ba le huit février noppi démarrer deuxième semestre bi à partir du 4 février xam nga loolu moo lay won ni cuune lañ cest à dañ ni premier trimestre bi day jeex le 30 janvier bu jeexee la 30 janvier ñu maye benn semaine maanaam ñu dem ba le 8 doog a dooraat léegi nag ñu ni loolu fête la ba noppi nag daal di ñëw ni deuxième trimestre bi day démarrer le 4 février alors que pourtant dañ ne 4 février mi ngi ci biir fête yi. donc am na ñeenti fan yoo xam dañ koy dañ koy. génne dañ koo dugal comme fête. génne waaw ba noppi dugalaat ko. Mm-hmm. pour période bu ñuy jàng pour woon la cuune gi ci nekk mais nag loolu bettuma ci ministère éducation nationale xam nga lu ko waral parce que ministère éducation nationale boo ba ca kaw ba ci suuf. man euh, ay ay retraité laa fa gis yoo xam ni presque ñu ci bari wax dëgg yàlla amatuñ dara lu ñuy prouvé ci système bi ñoom retraité nañ ñu woowaat leen fa bari nañ fa loolu wër ko ñi ci des ay laudateur ak ay laudatrice maanaam ay taggkatu maam maam ay taggkat mm-hmm. ñoom la am cest à que moo tax man lii ñu def nii erreur bi ñu def nii c'est-à-dire daan ne léegi fête yi day nekk euh, à partir du 30 ba le 8 février ba noppi daan ne deuxième trimestre bi tam day démarrer la won ni cuune weesu loolu. loolu lépp tey ci mais mais mën nañu ko jàppee erreur daam tamit. mën nañu ko jàppee non non non du caaxaan parce que calendrier bi ay services yu bari ñoo koy defar ça dañ koy valider day am bureau yu bari. ok comme li ñu donc mhm. Mhm. Euh, mhm. ça avec la dernière énergie. et maa ngi demandé sama camarade syndicaliste yi. yi nga xam ne ñoo tuddee seen bopp G7 ñu ñëw ànd ak ñun G20 ñu rejeté calendrier bi parce que waruñu exposé jàngalekat yi bu dee ñoom ànduñ ci nañ génn. wax ne àndun ci def comme ñun ñu wane ni calendrier bi baaxul parce que du may jàngalekat yi ñu soufflé te jàngalekat dafa soxla trimestre bi su jeexee ñu may ko mu soufflé waat tuuti bu ko defee mu mën a jëlaat yeneen ressources pour gën mun a jàngale parce que jàngale dafa metti kon nag ñun nous rejetons ce calendrier c'est pas mhm. bon calendrier mhm. d'accord léegi dañuy yéen yen yéen waa g école bi dooragul ngeen bëgg indi déposer waat préavis de grève fu nit ñi jëm gannaaw toog nañ ay weer yoo xam ne jànguñu ko ñu koy jàmbat pare ñu ngeen ngeen ngeen bëgg delluwaat buum ca mboy mboy waaw jërëjëf Moustapha mais xam nga tamit ñun ñu fee nekk ñu ne lay ay mbas ba yéen daal li ngi li ngi leen warloog yéen duñu leen ko xam nga bërki démb gis nga fi conseil économique social et environnemental du ko jox bi mu yegsee li mu njëkk def mooy yokk indemnité session yi déggoo loolu mhm. waa léegi ñooñu kuy yokk am nga xaalis waa léegi ñoom bu ñuy yokk ci yeneen secteurs yi dañ naan am nan xaalis loolu mën nañ ko waaye bu dee yéen jàngalekat yi muñ leen waa est que jàngalekat buy dem ca marché ba dañ naan ko yow sa jabar bu ñëwee dañ koy nduggal may ko ko ndax jabaru jàngalekat la est-ce que jàngalekat bu fayul sa location dañ lay muñal jàngalekat bu fayul sa location dañ lay toroxal kon ñun li ñu gëm mooy nañ bàyyi seen tappale yi lin ñu ameel dañ ñu koy fay bu ñu bëggee jàmm am ci ci njàng meeg njàngale mi mooy ñu jox ñu suñuy rappel yi ñu ameel te bàyyi tendeefal bi bu nu ñu koy jox ñu bàyyi sàcc suñu xaalis bi ñuy def ci ay impôt beneen bi mooy suñ acte yi ñu signature ak circuit de signature bu gudd bi boo amee projet looloot ñu daggal ko jàngalekat yi amuñu dul seen carrière buñ paree ci loolu nag ñu ubbi ay waxtaan comme nañ ko waxee woon pour tiiri ndam ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi mooy la système de rémunération dañ koo étudier wone ne ab bot di compte am na ci na jaar yoon loola jàngalekat yi xaar parce que loolu mooy àll kalat ji mooy poñ bi ëpp doole noppi nag bu ko defee yeneen poñ yeneen comme ay DMC ak ñi war dem position de stage ak coow li nga xam ne moom ngeen dégg fan yi muy décisionnaire yi ngeen jaay doole daal di leen di wax ne léegi seen seen seen CAP date de signature bi moom mooy date d'effet bi alors que date d'admission bi moo war a nekk date defe bi yooyu yëpp ci jaay doole mm-hmm. léegi nag mm-hmm. moo tax ñun loolu lépp bi ñu ko xoolee ñun G20 ñu décidé déposer suñu préavis de grève mm-hmm. préavis de grève bi nag euh, démb lañ ko finaliser incha allah altine dinañ ko déposer ci tableau Mariama Sarr ministre de la fonction publique bi nga xam si moom moo yore loolu ci wàllu gouvernement bi pour yëgal ko conformément nañu woo ñu wax ci lii ma leen fi limal ak yeneen yu ma limul. bu ko defee bu ñu bëggee jàmm ñu andi ciy saafara bu ñu ko deful nag bu weer wi jàllee selon ni ñu ko loi bi maye dañuy delloo buum ca booy booy ba ñu. waa GFM dam li ñu amoon ci temps jeex na lan ngay tàggatoo li may tàggatoo daal mooy euh, di la sant di la gërëm di wax jàngalekat yi ni leen euh, bu ñu xaat mukk ci taxaw. xeex pour suñuy àq ak suñu yeleef parce que ñun réew mi dañ cee bokk du ñu nangu kenn di ñu boddi ak di ñu jaay doole ak di ñu gëmloo ni yéen ay patriote ngeen sama camarade syndicaliste yi ministre bi bëgg a nelawale loolu naan leen ay jàngalekat patriote jàngalekat patriote mooy koo xam ne da koy xañ àq ak yeleefam ñun kenn duñu naxe loolu liñ ñuy li ñu bëgg mooy ñu teg mbir mi yoon jàmm bu ñu ko bëggee day lalu ci dëgg parce que olof yi ñoo wax ne jàmm day lalu ci dëgg bu ñu bëggee jàmm am ci école bi nan ñu jox suñu àq ak suñu élève bu ñu ko deful rek ñun jàpp nañ ni jàmmarloo bi day day commencé. jërëjëf Dame moom mooy secrétaire général CUSEMS authentique bokk tamit si g di kuréel boo xamante ne ñoom ñooy défendre àq ak yelleefu jàngalekat yi ñu koy jaajëfal moom moo nekkoon tey suñu invité de la rédaction ñuy jaajëfal tamit euh, Diaw Fara moom moo nekkoon ci caméra yi feggoon ci ak Mansour Dramé ba beneen yoon incha allah